abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kasalada sidi bara a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin salallahuma ala seydina muhammadil fadil xaatim nasil haadi wa ala alihi qadri miqdaar azim radiallahu taala an ashab rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ya himmata cheikhi wahduri lana bi hada almahdari wal taatafi bi nadratin taati lana bi zafari ñëw léegi suñu darsu nasiha incha allah Seydi Ahmad Sukari ji wax na ne yaa bunayya man hakal xaqu nural imaani baada an awdaa fiika nuural aqli mu ne yow sama doom may na la dëgg maanaam yàlla may na la leeru ngëm am nga leeru ngëm yàlla mu ne ginnaaw ba nga xamee ne defal na la itam leeru xel sa xel mi xel mu leer la mu ne fa xuz mi ne nuuray ni xabasal adab mu ne na nga jël ci ñaari leer yooyu noonu nga jumuwoo ko ci teggin xabas mooy comme nit taal safara nga dem jëli ci safara boobu noonu jum maanaam benn xalu safara nga dem taal feneen loolu mooy iqtibaas maa ngi dem di jumuwoo ci barabu sàngam maa ngi dem tibb ci barabu sàngam loolu mooy xabas <coughs> moo tax mu ne yàlla daf la may ñaari leer leer bii leeru gëm yàlla la leer bi itam leeru xel la si xel mi leer na mu ne fexeel ba ñaari leer yooyu noonu nga jumuwu ci maanaa nga tibb ci waaye nga amal ci li ñuy wax teggin al adab nga am teggin teggin boobu nag lan nga koy dooyee mu ne li tasluka bihi fi madayiqil masaliki ngir nga soobu ci mu ne ci xat-xatu sóobuwaay yi parce que li français naan tout début est difficile bépp mbir boo commencé rek jafe-jafe daf ci daf ci daf ciy am dégg nga kon lépp looy soobu ci moom na nga séentu jafe-jafe bi ngay njëkk a dajeel d'abord bul yaakaar mu ne nit mën na commencer dara wala nit mën na jëf dara wala mun na nit mun na jóg pour dem defi dara te loolu du am ay jafe-jafe faw ay jafe-jafe am ci mu ne waaye na nga jël yar yaa ngi dégg nga sóoboo ko ci xat-xat yooyu nga xamante ne yaa ngi ko yaa ngi ciy sóobu yaa ngi dégg mu ne su boobaa fa tan ju xaaliban min al atab mu ne su boobaa di nga mucc te di nga réussir te dinga nga maanaa daaneel dégg nga sa sa dinga nga di yaa ngi dégg euh, jafe-jafe yi di nga xalkaande yi mooy coono yi yaa ngi dégg waxtu woo àndee ak yar rek mu ne dinga nga mucc te dinga noot di nga convaincre yaa ngi dégg jafe-jafe yi mu ne waa aqil nafsaka bi xablil aqli mu ne nanga nga xelalal sa bopp mu ne ci buuma xel wa aqil nafsaka mu ne nanga nga xe na xelalal sa bopp xelalal sa bopp na nga delloo sa xel mi sa bopp bi hablil aqlil munawwiri mu ne ci bu mu xel mu bu bu ñu leeral maanaam xel bu am leer xel bu ànd ak leer yaa ngi dégg mu ne anil xawdi fil baatili fi fi fil baatini wa zahiri mu ne nga bañ di xuus yaa ngi dégg ci neen nga bañ di xuus ci neen bañ di xuus ci loo xam ne baaxut bañ di xuus ci loo xamante ne lu bon la mu ne ci zahir ak ci baatin mu ne jëlal sa xel mi nga conscientiser sa bopp mu ne na nga delloo si itam yaa ngi dégg sa xel mi nga leeral ko ba doo xuus yaa ngi dégg ci lu bon loo xamante ne ci zaahir la ak ci baatin maanaam lu feeñ ak lu nëbb doo ci xuus ci ci lu bon <coughs> mu ne fa inna nafsa ida utliqat hawa hawaaha asraat bi talafi li saaxibiha mu ne fa inna nafsa ndax bakkankat isa utliqat suñ ko boyalee wa hawaaha ak bànneexam bi moom bakkan mu ne at dafay gaawu bi te lafis li saaxibiha ngir rëy boromam waaw bakkan bakkan suñ ko bàyyee mu mu boy dafay gaaw a rey boromam loolu il faut ñu ñu bàyyi ci xel def très attention waaw parce que boo toppee sa bànneexu bakkan ak sa bakkan bi dañ lay yóbbee yow nga xal ko wala nga yàqule moo tax mu ne fay na nafsa ndax bakkan ida utliqat suñ ko boyalee maanaam suñ ko bàyyee waxa waaxa ak bànneexam bi asraat dafay gaaw bi te laf fi ci xalak yaa ngi dégg li saaxiba ci boromam dafay gaaw a xalak boromam Seydi Ahmad Sukar ji mu ne wala talafa akbar min talafi diin amul benn xalkande bu gën a rëy xalaku ci diine xalaku ci diine nag mooy koo xamante ne topp nga sa bànneexu bakkan waaye ban bakkan mooy bakkan bi la jëmee ci lu duhut yàlla parce que ñu bëri itam dañuy wax bakkan bakkan bakkan te duñu ràññale bakkan yi am na bakkan yoo xam ne bakkan yu baax la mooy bakkan bu lay xirtal jëmale ci yàlla waaye bakkan bi ñuy wax fii ni mooy nafsu ammaaratu bi suu yi mooy bakkan bi lay digal lu bon nga topp ko rek ak bànneexam bi nga topp ko rek su boobaa xalkaande te la ci la la jëmee mu ne dara gënt rëy nag xalkaande nga xal ko ci diine mu ne woowu asraw ma yakunu indama yu mastu bi jaanibi adna li ihtidaamin mu ne mooy li gën a gaaw dégg nga ci lii jël nit yaa ngi dégg mu gaaral ko wala mu damm ay wetam yaa ngi dégg ba dootul demati fen dégg nga loolu moo ci gën a gaaw Sidi Ahmad Sukari ji mu ne fa xazaari mina talaffi mu ne maa ngi lay moytandikuloo xalkaande boobu talaffi moom mooy xalku wala dee yaa ngi dégg ci lu jëm ci wàllu ngëm-ngëm waaw koo xamante ne dafa rikkee dara nekkatut ci moom waaw mu ne wata laafa amra nafsik dégg nga xabla suquti li li lil xadiit mu ne na nga nanga rey na nga éliminer na nga xalak sa mbiru bakkan bi avant mu lay wàccee fi gën faa suufee waaw avant mu lay wàccee moom bakkan bi fa gën faa suufee ci fa suufee rey ko moom li alxuraan di wax ne faqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum inda baari'ikum rey leen seen bakkan yi loolu mooy li gën fa seen borom moo tax mu ne rey sa bakkan nag rey sa mbiru bakkan bi njëkkum avant mu lay wàccee fi gën faa suufe ci suufee yaa ngi dégg te booba yow min ala surafi yaa ngi jóge ko fu gën faa kowe ci teddaange ngay seetaan nag ñu jëlee la fu gën faa kowe ci teddaange ñu wàccee la ba nga gën a suufee ci ñu gën a suufee yàlla na yàlla mosoon ci loolu noonu <coughs> moom la Ibou di woy naan ngay yéeg ci ci ci ci ba ci njomboxtalu garab dégg nga ñu seen la xaw ma nu ko waxee ci ci ci kaw garab nga jékki-jékki bécceeku jëm jëm suuf dégg nga yàlla na yàlla xiruñu loolu dégg nga Sidi mooy loolu mooy koo xam ne dem nga ba njomboxtalu see dànge fu gën a kowe waaye ngay seetaan nag ba dëgg-dëgg Eh, eh, bakkan rëkki la ba nga gën a suufi fu gën a suufee yaa ngi dégg parce que xadid mooy fu gën a suufi ci ci suuf dégg nga loolu yàlla nañ ci yàlla musal mu ne wala taatamid ala ma yunabbihuka bihi ahla sharaf dégg nga <clears throat> mu ne bul di wéeru ci loo xamante ne dafay finir dafay jeexal ci yow maanaa ci ñooñu te dànge yàlla fal na la nga bokk ñi ñu tedd yàlla fal na la nga bokk ñu tedd fexeel ba bul wéeru ci loo xamante ne daf lay wàcce ba nga suufee gën a suufi ñu suufe ñi mu ne wa ma azunnuka tanju in lam tuwattat mu ne yaakaaru yaakaar lu ma nag benn muccukaay yaakaaruma nga mucc <coughs> in lam tuwattit su fekkente ne saxaloo nafsaka sa bakkan bi ala siratil mahmudati maanaa ci doxalin bu bu ñu gërëm sa bakkan bi na ko saxal ci doxalin bu ñu gërëm doxalin bu baax doxalin boo xamante ni ñëpp ko gërëm nga soo tegut ci loolu sa bakkan dégg nga su boobaa itam ci suufe rek ci nga jëm mu ne bis ci naa bi mayu mayu zammu te nga moytandiku ci loo xamante ne dëgg-dëgg dañ la koy xase nit na moytandiku loo xam ne dañ la koy xase dégg nga loolu nag Baay waxoon na ci lu leer nañ mu ne lu bon yaa ngi koy xamee ci bëggoo ku la ci fekk lépp loo xam ne bëggoo nit fekk la ci bëggoo itam dee fekk la ci xamal ne baaxul jarul nga koy def lépp loo xam ne bëggoo ñu fekk ci bëggoo itam dee fekk ci xamal ne loolu baaxul jarul nga koy def kon ijtinaabu maa yu zammu nga moytandiku loo xam ne lu ñuy xas la lu am solo la su ko defee tey lii mooy nasiha bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin قدر مقدار العظيم قديره مكائد أبنائنا لأهل بقائنا نريد بخير الخلق خير ملائي لا شك والأسواق وكل ميائي وقد زغرب الأقوال مكرا بنبوتين وقد توكت أمل قاس لا تبعد يا والأسواق وكل مراج وجاءوا ببدر قيل ورجالهم وباءوا بغزل زائر وباء أريد بخير القلب خير ملائي لما شك والأسواق وكل مراج باين وهل منأ الماعي طواف ببيته بمكة يوم الطهاء وهل منه نصر ديانة دائما بكل بلاد الله طول بقائي أريد بخير القلب خير مرائي نفى شك الأسرار كل مرائي صلاة وتسليم عليه بقدره وآل وأصحابنا وآل ورائه خير المرائي نبع شك والأسماء وكل مرائي لا إله إلا الله abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil gëstu loo doon si di baram